je vraiment contre euh, domination dominer quelque mm. chose comme ça mais euh, damay rebondir ci lu doyen wax lu am solo la le patriarcat xam nga tey bu ñuy wax les la violence les violences les formes de violence exercées contre les femmes xam nga patriarcat euh, patriarcat ñu ngi koy ñu ngi koy définir forme sociale boo xam ne l'homme exerce le pouvoir dans tous les domaines politique économique religieux. patriarcat waaw. Ah yor pouvoir bu yooyu yëpp. waaw on est d'accord. Toujours, politique économique et religieux religieux aussi tey bu ñu doon euh, euh, en fait euh, jël débat bi peut être yóbbu ci côté politique bi juste un exemple tey ñaata candidat la yam loolu moom loolu moom du du du du barème non non foofu du barème <laughs> parce ñoom la non non je je donne un exemple pour vous dire comment ces ces pouvoirs sont liés pouvoir politique économique comment sont liés je donne un exemple jëlee la la la seule femme qui est passée c'est qui ah mais Anta Babacar. Anta Babacar si il y avait d'autres femmes. Anta Babacar c'est qui. ben c'est qui on le sait. c'est c'est elle est une femme entrepreneur elle, elle, elle, elle dirige une grosse entreprise. c'est une femme entrepreneur donc a priori papa, etc., voilà etc. donc a priori. il oui. y a il y a ce qu'on appelle une manne peut-être financière à côté pour pouvoir euh, exercer faire une campagne oui, un comme pouvoir. tous les autres vous voyez un peu ce que je veux oui. dire. je donne juste un exemple. oui vas-y. vous mhm. voyez un peu. dans les élections passées am na ñoo xam ne jàll nañ. comme voilà am na am na xam ne jàll nañ mais euh, pour ñu def pour ñu am na ñoo xam ne bëggoon nañ nekk candidat mais amuñ caution am na jigéen yu bëgg nekk candidat mais amuñ caution. waaw am loolu c'est y a quelque part euh, le manque de un pouvoir économique. oui d'accord mais loolu du daal góor ñi. am ah, si ah, c'est rare c'est très rare. Euh, professeur Amsatou Sow Sidibé elle était candidate. dañ ko téye ci parrainage. non non non pas dit. Euh, euh, dem ba foofu dama ne dama ne am na ñoo xam ne bëgg nañu nekk candidat. mais góor ñi am na ñoo xamante ni <laughs> déposé nañu ndaxte amuñu caution. waaw d' accord loolu ba tey mais de parrainage e. amuñu sax vélo. waaw mais loolu loolu bëriwul. waaw dama la bëgg a wan proportion bi. c'est-à-dire c' est des exemples quoi bëriwul. tey booy jël pouvoir politique bi jëlal par exemple à l' assemblée nationale. Moi, je suis, j'ai été très content de voir avec la loi de la parité, il y a des femmes qui sont à l'Assemblée nationale, au niveau du Conseil économique social, au niveau des des d'autres instances. Oui. Mais mais pour man parité bi dañu xaw a nax tuuti parce que. on on ne mise pas sur, la qualité mais sur la quantité. mais man mooy sama opinion man musuma d'accord ci affaire parité. or oh, que parce que dama ne woon parité boo deful nag jigéen ñi la nara a défavoriser parce que jamono ngi ñëw école. Uh-huh. jigéen ñi nee na ñoo dàq jàng. ñoom ñoo gën a ñoom ñoo gën a bëgg euh, gëm euh, fonk seen njàng ñoom ñooy jàll toujours devant jamono ngi ñëw di nga dem ba nga xamante ni jigéen ñi ñoo war a jiitu ci seeni performance ñoo ko liggéey. et bu boobaa boo fa nekkee naan parité nu muy demee. waaw ba tey benn jigéen benn boobaa jamono boobu ñëwagul. mais li wax ñu wax ci li am tey li am tey mooy lan. am nañ benn loi boo xam ne wax dëgg yàlla am nañ ko ci lutte parce que quand on parle de la loi de la parité aussi il faut nit ñi comprendre que c'est une longue lutte un acquis considérable bien sûr, c'est un acquis considérable yoo xam ne ay jigéen ñoo xam ne dañoo dañoo lutter par des plaidoyers de ouais. façon vraiment xam nga ñëpp jàpp ci mouvement féminin yi les femmes leaders les tout ñëpp jàpp ci bañ am loi bi mm. on est d'accord mm. loi bi aussi nekk loi boo xam ne dañ koy rafetlu parce que au moins euh, jox na gëdd jox na visibilité certaines femmes au niveau de ces de ces instances. Mmh. mais aujourd'hui par rapport à la à la politique parce que man je mets l'accent sur la politique que mooy xam ne mooy euh, li li yor société bi. parce que tey toutes les décisions yoo xam ne c'est pour le peuple ou pour la communauté ñu ngi koy jël de façon politique. bien sûr on est d'accord donc ñun ñëpp la la concerne donc fi ñu jëlee décisions yi ñun bëgg nañ jigéen ñi toog fa parce que jigéen moo xam lan la li moromam di dund. par rapport ak négocier par rapport à la société par rapport à tout ce que nous vivons dans la vie on est d'accord mais dañ dañ gis ne dans ces hautes instances souvent jigéen ñi duñu fa teew góor ñi ñoo ñu décider souvent ñoo fay nekk parce que nit ñi defee le pouvoir politique la